nga teg ko fan monsieur le président de l'Assemblée nationale nga teg ko fan ndax dafa am ñaari député ndax dafa am député am ndey ak député amul ndey lan moo tax fii ci Assemblée nationale ñun bu ñu déposé doo ko xool te bu ñeneen déposé nga xool ko loolu du yoon ndaxte règlement intérieur bu Assemblée nationale da ko dàq loolu moo tax ma ne ah comme du ko xool nag kon c'est difficile ñu ñu tey ngeen ñëw nañu ñun jàmm la ñu bëgg ñun jàmm la ñu bëgg c'est pas vrai l'autre nom de la paix c'est la justice l'autre nom de la paix c'est le respect des lois et règlements donc mënuma gëm majorité parlementaire bii bu waxee jàmm moo ko fi indi te muy fouler au pied les droits de chaque député de tous les députés de tous les citoyens sénégalais moo tax ba jàpp ne balaay proposition bii balaay projet de loi bii di jàll da ngeen waroon wax dara ci sama proposition de multiplier de commission d'enquête parlementaire balaay projet de loi bi déposé naa le 7 mars 2023 une proposition de loi pour la modification des articles L29 L30 et L57 du code électoral principe la ñuy doxee c'est pas parce que da ngeen di wër fu nekk di fen naan projet de loi bii pour Sonko la pour Pastef la pour détenus moo tax ngeen ne du ma pour wax leen ne da ngeen war a respecter samay de député da ngeen a respecter samay droits de député monsieur le président de l'Assemblée nationale ce n'est pas normal tout à l'heure vous avez fait une précision à mon collègue Samy j'attends une précision de votre part pourquoi systématiquement systématiquement quand on dépose des propositions de loi quand on dépose des propositions de commission d'enquête parlementaire vous les foulez aux pieds, vous ne les regardez pas. Et quand mes collègues du PDS déposent, vous les regardez. Quand le président amène, vous regardez. ngeen teg ko fan bu ñu buggee respecter les lois oui nañu génnee Ousmane Sonko waaye nañ ko génnee par l'abandon des charges et par une amnistie qui protège le fils du président oui nañu génnee tous les détenus politiques Parce qu'ils n'ont rien fait, mais pas une amnistie qui protège le président, son fils, ses hommes et ses femmes demain. Abandonnez les charges, parce que ce sont des charges fausses, fallacieuses. Monsieur le Président, j'attends, j'attends de votre part, comme